الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على نبيه الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بوكي بوكي جلدي راوتنا نجي نجي أي طالب Eh, dëkkandoo yi xarit yi am jàmm eh, noo ngi sant yàlla bu baax ci lii nga xam ne day baaxu murit te yàlla jagleel nu ko tey jii te du waxtu ne mu di ko jagleel ab taalibe wala ab jaam moo di jëfe ndigalul sëriñ bi Euh, kon baat yi nga xam ne noo ngi koy jéem wax noo ngi ñaan yàlla mu dimbali nu ba ki nu ko waxloo di Cheikh Mouhamad Mountakha yàlla mu yàlla dimbali ba baat bu ñu ci wax yàlla na dëppoo ak bëggam ak jubloo kon ci ndigalul Cheikh Mouhamad Mountakha mi nga xam ne te jii may wax ak yéen yàlla dogal na képp ku yaakaar Sëriñ Tuubaa mooy sa kilifa te nuy ñaan loolu yàgg ba li nga xam ne ñi ànd ak moom ci bëggug sëriñ bi ak ak jublug sëriñ bi eh, yàgg ànd ak moom ba mott li nga xam ni mooy yéene ci sëriñ bi eh, baat yi nag noo ngi koy wax ànd ak bu cant di ko wax ànd ak xel mu dal waaye di ko wax itam ànd ak ak jaaxle cant gi moo di wax naa leen ko moo di sëriñ bi kum digal e, sant yàlla rek nga war a def ndax loolu lañ seq ak moom mu di nu digal nuy def mu de dinu tere nuy bàyyi te ku ne xam nañ mu nuy digal ci la ni guddi ci la ni bëccëg ku ne xam ne lim nuy tere kenn du ci dégg kenn xamu ko ci kon loolu mooy waral cent yi noo ngi koy waxee ak xel mu dal ndax xam na ni lépp loo xam ne da ko wax eh, suñ njëriñ njëriñul taalibe bi yëpp la njëriñul waa kër Sëriñ Tuubaa yëpp la waaye njëriñul islaam ak jullit ñëpp la kon lépp loo xam ne aju na ci moom mu wax loo ko nit rek cent rek ci war jaaxale it am na ci ndax sëriñ bi euh, neexu la waxal moom ci jëmm yàlla dimbale na ko ku mën a muñ la ku mën a jëllale la waaye jamono ji moo demee noo xam ne nii baat boo wax danañ ko ëcc di ko awte awte yóbbu ko fu mu dëkkut àggale ko foo xam ne àggu fa waaye nag li ñu dalal suñ xel rek dañ cee dellu moo di sëriñ bi moom xam na ni eh, ku mat la ku yàlla matal la te ku mën a muñ la te xam na ni ñëpp yem eh, kenn ci matut kon loolu moom mooy li nga xam moom la ñu ubbee kàddu yi kàddu yi sëñ bi nee na moom Cheikh Amadou Mountakha xalifa général Mouride mi ngi nuyu mboolem jullit yi rawatina mboolem taalib yi te tàmbalee nuyoo bi ci ñi nga xam ni bokki boppam lañu te bokk ak moom sëñ Tuubaa te tey jii bu du woon ak cëru sëñ Tuubaa ak ni sëriñ bi tërale kenn ku nekk ak moom yenn yem képp ci moom kon mu ngi jiital nuyoo bi ci ñoom di àggale nuyoo bi ci mboolem njaboot gi taalibe yëpp bàyyiwul kenn seenu njaboot ak mboolem taalibe ndax njaboot yi yëpp taalibe Sëñ Tuubaa lañ di àggale nuyoo bi ci mboolem jullit ñi nga xam ne lépp loo xam ne sëriñ bi nekk na ci taalibe yi nekk na ci ñor na leen saf na leen ndax sëriñ moom lépp lu muy nekk ak lépp lu ko ñor dara génn ci yàlla dara génn ci yonent bi kon dara génn ci lislaam kon ñoom ñëpp mi ngi leen nuyu Eh, kàddu yi nag li ko waral moo di jëm ci mbiru màggalu poroxaan xam ngeen ni fan yee eh, sëñ bi waxoon na jullit yi waxoon nag taalibe yi ci mbirum mbas mi nga xam ne dafa dellu siwaat ci réew mi dañuy wax ne dellu siwaat na ci réew mi te gën a yaatu bi yoon daanaka lii nu ciy wax day sosu rek ca loola day sofu rek ca loola kon sëñ bi nee na mbirum màggalu poroxaan gi nga xam ne xam ngeen ni at mu ne dañ koy def ci poroxaan di ko defal sunu waajuru sang sunu waajuru yaakaar sunu waajuru sëriñ di maam jaara Buso mi nga xam ni ci ab liggéeyam ci yàlla topp yàllaam ak jaamu yàllaam ak jëfe la ko sama borom digal moo tax ginnaaw inna laaha laa yudhi'u ajral muhsiniin ci la ko yàlla fayal li mu ko fay waxuma sax sëñ Tuubaa ku ko yàlla fay muy cër boo xam ni kenn xamul nu mu waaye bisam bii nga xam ne muy màggal Poroxaan bu agsi doo xam fu nit bokk doo xam kuy nit doo xam kuy sëriñu nit doo xam sax kuy diine nit ñépp fay daje ngir di ñaan ak di ko ñaanal loolu liggéeyal yàlla rek ko mën a may kon eh, ni ngeen ko xamee at mu ne ñëpp dañ fay daje di ko ñaanal yaakaar naa ni bu fekkee ni juumuma at mi ñu ko njëkk a def ci Cheikh Amadou mi nga xam ni moom la sëñ Touba sédde woon euh, dundal fi maam jaara nekk wattu ko ak taxawu ko at moom njëkkee màggal si poroxaan ak léegi defe naa leen jële ci juróom benn fukki at ak juróom-ñaar mbaa juróom-ñett booba ba léegi at mu ne dañ koy màggal mu tàmbalee ca euh, ni ni ni niñ ko ni ko ni ko ñi ko ñi ko sëñ Bassirou njëkk a digal fekkewuñu ko fekkewu ko moom ñoom ko njëkk a digal ay taalibe yu nekk Saalum dañuy wax ni ba ñuy ñëw ay ginaar rek lañu reyoon màggale ko bis bu ginnaaw ba ñu fa jàngee alxuraan ak ak ak i xasaayit lay gis ngeen ni mu toll kon màggal googu xam ngeen ni amul bis boo xam ne dañ ko koy jàppal sëñ bi rek mooy ci coowareem ci sëñ Bassirou ba ci sëñ Moustapha noonu lay demee mooy seet waxtu woo xam ne yaakaar na ne bu ko defee nit ñi mën caa daje mu jàpp bis boobu ñu daje ci xam ngeen ni at mii di mille 2021 jàppoon na bisu màggal gi muy 25 février ba tàmbali woon na ko yëgal kilifa yi waaye ginnaaw bi gis ngeen li fi dox ba waraloon waxi keroogam jooju mu doon wax ci ñetteelu fanu janvier bi muy ni ñu ko xamalee ni euh, mbas mi dellu dellu siwaat na ci réew mi te gën naa yaatu daanaka dañ na fépp muy euh, li tubaab yi di wax vague mm, te arab yi di ko wax mawj te wala fi mën ko wax waame mu xam ne dafa yaatu te metti te sëñ bi digle woon la mu ci digle woon jàng alxuraan saraxe ak jàng xasaay euh, bi sëñ bi seetee loon nag xam ne ni ko ni mu ko waxee woon keroog rek euh, wax ni atiu llah wa atiu rasul wa ulil amri minkum yàlla moom jagleelul kenn nit rek xam lépp ci àdduna yor lépp ci àdduna déedéet kenn ku ne dalaa sedd cër sedd la xam-xam jox la tuuti ñun ñi sunu cër mooy leenu nekk mooy jàng jàngale yere te dara bañ ciy génn lislaam ñunu jaaxal nu ñaan ko yàlla waaye am nañ suñu bokk yoo xam ne ba tey ci nun lañ bokk ñoo xam ne yàlla sédd na leen benn beneen cër boobu moo di cër bu àdduna bi ñoom loolu lañ jàng fi la seen xam-xam jëm seen njëriñ li ñuy jëriñ it foofa la jëm loolu moo tax ba sama borom mi nga xam ni moom mu rekk xam doomu aadama moom rekk xam àdduna moom mi ko bind moo moo moo tax mu wax ni bu ngeen toppee yàlla ba noppi topp Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba noppi nag ki ngeen seqal àdduna mu féete leen ci wàllu àdduna na ngeen ko topp ci lépp loo xam ni ah, du yàq seen diine du yàq topp bu ngeen topp yàlla du yàq topp bu ngeen topp Seydina Muhammad lépp lu mu leen wax lu ko dul yàq rek na ngeen ànd ak moom ca loola sëñ bi waxaa na ko keroog fasalu ahla dikri wax ne foofu li fi yàlla jublu firi moom daanaka dafa yaatu kenn ku nekk na nga fire waaye li ci gën a nottu mooy dañuy wax ne ahlul dikr mooy ñi nga xam ne mooy ñi ma wax léegi ñi xam ne yàlla da leen a jagleel xam yoo xam ni xëy na suñ xam-xam jëmu ci mooy li ma leen doon wax rek am na loo xam ne yàlla dañu koy jagleel waaye am na loo xam ne yàlla da koo jagleel ñeneen lu mel nii bu amee nag yàlla dafa dafa wax ni ñu ñi nga xam ne ñu ñu ci ëpp xam-xam lépp lu ñu wax nañ ko topp bu yàqut suñu diine loolu moo waraloon suñ bi wax la mu waxoon keroog ginnaaw nag ñoom ñi nga xam ne ñoo nu féeti foofu ëpp nu ci xam-xam sama borom digal nu loolu wax nañ ni seetlu nañ ni jàng nañ ni jàngat nañ ni e, mbas mi li koy gën a yokk di ko gën a yaatal mooy jaxasoog nit ñi ak sell di e, kon looloo tax ba sëñ bi ku ne xam ne lool moom mawj bu njëkk ba muy wàgg bu njëkk ba waame wu njëkk wa kenn ku ne gis na taxawaay ba mu ci taxawoon ci wàll gépp ak ci fànn fànn yëpp digle na jëf na wane na joxe na lépp rek ngir jaam yi ñaan na lépp itam ngir yàlla génn ci ak jàmm ba la ca la ca la ca nekk lépp nun nun nun neen xam nan la ci sama def kon bu dellu seetee sëñ bi du dul man du dellu fa fa mu newoon rek loolu moo tax ba neena na bi mu jàppee màggalu poroxaan te ñoom ñu ñëw wax ko ne ko daje gi ak jege gi ak mbooloo mi ak raj rajloo gi euh, tax na ba loolu loolu daal mooy li nga xam ni mooy mooy gën a tasaare jàngoro ji moom mu seet ci wàllu boppam xër gi nit ñi xër ci poroxaan xër gi ñu xër ci maam jaara waxtu màggal gi ñëwee kenn du des ñëpp bàyyi seeni kër Tuubaa yi kenn du fi des feneen kenn du fi des mu xam ni xër googu yàllaa ko def ci nit ñi te neexut a dindi neexut a far ne ne ne neexut dànk mu ne nag kon gi màggal gi nga xam ne jàppoon na ko 25 février 2021 da koy tuxal da koy fomm màggal gi nag xam ngeen ni kenn mënu koo bàyyi ndax ni ma leen waxee Cheikh Amadou Bachir màggal gëm njëkk a fekke ak léegi juróom benn fukki juróom benn fukki at la ak juróom-ñaar te musta musta mus musta kenn musta koo jëllal waaye lii musta am ginnaaw lii am na nag loo tax sëñ bi ne jàpp gi mu ko jàppoon le 25 février tuxal na ko tuxal na ko ba yàlla mi nga xam ne moo fi indi lii bu ko neexee jële ko fi suba te loolu lay ñaan bu ko neexee jëlee ko fi ginnaaw suba bu nag ba nga xam ne nii jëlee na ko fi mu wóor ñëpp ne lu ñuy layee amatu fi mu jàpp bi ndax xam ngeen ni màggal yi fi yëpp kenn ku ci bis màggal bu ci ne la boo xam ni bisu boppam la bu bu toxu ñi ci weeru wolof lañ ko jàpp ñi ci weeru waaye màggal Porokhane nag mu amul bisu boppam sëñ bi rek mooy jàpp bis mooy jàpp bis nag waxtu boo xamante ni mënu na. niñ ko daan defee bu njëkk ak barki démb ak barki démb waxtu woo xam ne jamono laaj na ko rek mu jàpp bis bi ñëpp daje fa kon nag nañ xam ne sëñ bi ñaar rek a tax mu euh, dogal lii leen benn benn bi mooy sabab sabab mooy li ma leen wax mooy mooy mooy mooy mbas mi ak jàngoro ji te ñi nga xam ni ñoo jëm ci ñoom la seen xam-xam jëm ci wàllu wax ni wax li nga xam ne moo koy yokk si bi moom lépp luy lor jaam yi waxu ci dara sabab biir moo di màggal gi amul bis bis bu bis bu fixe boo xam ne bii dañu naan bis bu ñëwee mooy màggal Porokhane waxtu ko soowee rek mu jàpp ko kon lool mooy sabab bi la ci desit nag mooy euh, ginnaaw ginnaaw ginnaaw sabab bi yilla yilla ji moo di xam ngeen ni màggalu jàngoor ji mbas mi mu fi dugg daaw ci defe naa weeru ci cetu février bu mu juumul kaa bi fi njëkk am ak màggal Porokhane ay bis rek la ba ba ñuy màggal boobu dëkk kaa yi matut fukki kaa ci ci réew mi moo tax màggal ka ñu màggal ko ci jàmm dem ci jàmm toogaat lu yàgg jàngoro ji tàmbalee tasaaro bi mu tàmbalee tasaaro itam lu mel nii am xam ngeen ni euh, kër yi ku ci nekk am nga sa bisu bopp sa bopp bisu bisu kilifa waaye bi lii amee it sëñ bi ñaan digal kilifa yi nga xam ne dañoo amee màggal leen ginnaaw kat ñoom wax nañ ni daje dajale dajaloog mbooloo mi ak rajo dajale ak jege gi mooy waral te saare ji daaw laa wax di waxuma ren at mii ñu weesu ba màggal poroxaan jàlle màggal gu agsi dajeeg loola mu ñaan ka ko ñu bàyyi ko ba ba beneen yoon moo tax gis ngeen ginnaaw màggal poroxaan màggal Kazu Rajab bu Sëñ Fàllu ba mu ñëwee euh, nii lañ def dañoo bis ba ñëwee rek ñu mën da ñàkk daje ñoo daje ñaan waaye kenn baasut kenn dajalewut kenn ñëwut kenn demut fen kenn ku ne sa kër nga toog ñaan fa màggalu Daaru Muxti noonu màggalu Sëñ Saaliw bu noonu màggalug sëñ Abdul Ahad noonu màggalug sëñ Abdul noonu màggalug daaru salaam noonu màggalug daaru rahmaan noonu layatul xadr noonu soxna mu mën ak li mu ndax ni dañoo gaaw ci fàtte na sama màggal te màggal yépp yem ci sëñ bi sëñ bi nee na euh, sëñ Tuubaa ñëpp a ko bokk ñun ñëpp ak njabootam lañ moom jaare nun ñëpp ko bokk ak njabootam ni kon kenn ku ne na xam ni bi su màggalu poroxaan bi ak seen bisi màggal yii njabootu sëñ Tuubaa yi mu tudd ak ñu yëpp la yemale fàttewut genn waaye daf leen a jox misaal ci màggal yi nga xam ne weesu nañ daaw atum daaw 2020 yi nga xam ni yëpp bañ ci àggee ñu wax lu mel nii dafa ñaan digle ni nañ daje ci kër yi rekk defi ñaan ba yàlla soppi jamono mboolem kuy kilifa ñi ma lim ak ñi ma limul ñëpp ku ci am bis bu bis ba sa bis ñëwee xam ne loolay bëggug sëñ bi danga ko caa fekk kenn màggalul kenn dajaluwut kenn deful dara kon nag loolu yil la la joo xam ni ak sabab bee bu ñu dajee loolu moo waral sëñ bi ni kon euh, màggalu Poroxaan gi mu jàppoon le 25 février da koy tuxal ba jëmmi jamono tuxal ko ba jamono indi jàmm ndax jàmm ci la lépp xaj buñ ci àggee nag ginnaaw moom amut bis bu fixe buñ demee ba mu wóor ni ñëpp ni li ñu doon ragal amatut coow leeg kër-kër jeeg raj-raj loo wàññi nañ ko ndax ñi xeet ci lépp rawatina nag lu jëm ci maam jaara bu boobaa ba mu wóor ko ne benn yil amatul benn lay amatul yàlla def na jàmm te loolu lay ñaan mu jàppaat màggal gi ñu def ko nañ ko daan defe waaye nañ xam ne bis ni ki tey moom date bi mu jàppoon di 25 février tuxal na ko ba jëmm jamono mu ñu àggee ci jëmu jamono nag mu manu jamono indi ko jàmm jàmm jàmm ñëw te loolu lay ñaan ci réew mi yàlla tàggale nag mbas mi waxtu wu mën di doon rek dana ko jàpp ñu def ko nañ ko daan defee bu kenn ñëw nag naan sëñ bi daq na màggal gi dootu am ak sëñ moom <laughs> màgg màggal gi da da da da koo fekk da ko fee da ko yokk du waaye du ko wàññi. da koy dundal waaye du ko jëme ginnaaw waaye nag ginnaaw sama borom moo bind jamonoom lu ko neex wàcc fi ni mu ko waxee woon wax ni jàngoro ji sama borom moo ko yebal rek bu ko wooyee mu dellu euh, moom jàmm nit ñi rek la bëgg te xam ni kuy daje poroxaan ku ne di di ñaan yiw rek nga bëgg moom nga bëggal sa bopp moom nga bëggal soxna si moom nga bëggal njaboot gi moom nga bëggal réew mi loolu du ci jóg tey du ci jóg bu mukk kon nag wax woo xamee dem nañ ba nga xam ne jamono mayee na ko jàmm mu am mas mi jóg fi dana jàppaat bis bi ñu def ko nañ ko daan defee waa lii wolof di wax rek naan jaam ak bëgg yàlla ak dogal mooy ci ne sëñ bi nag moom kenn ku ne xam na ni waxam ak jëfam lépp yàlla ci njëkk moo ci mujj ci diine la tënku ci gëm la tënku ci taalibe la tënku moo tax ba lii euh, alxuraan wax wala taquluna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah la daloon ko tedd ga ci màkk ba waa Quraysh ñëwee mbooloo mi bari ñu di ko laaj moom Seydina Muhammad am lu ñu koy laaj mu ne dellu leen ba suba bu subaa naa leen ci tontu ginnaaw nag moom tontu lu lu lu lu ñuy wax lu ne yàllaa ko koy njëkk wax lu mu war a tontu ne yàllaa ko koy xamal mu dem leen bu suba ba xëyee war leen a tontu yàlla yebalul jibril mu ne ngir mu man a tontu ngir mu xam lu muy tontu mu jaaxale ji lool ba mu ko waxee yàlla daf ko ne dangaa fàtte wax ne incha allah sëñ bi nag foofu rek la tënku moo tax nee na incha bu soobee yàlla mi nga xam ne moo indi lii indi li wéyoon indi lii ñëw tey ji tey indi lii indi ëllëg te mu ñaan lépp doon jàmm nee na incha allah buñ demee ba nga xam ne jamono may na ko ak salaam dana jàppaat bis bi ñu màggal màggal gi ñu bari war nañoo fàttali bu baax ne bi fi sëñ Moustapha jógee màggal gi Cheikh Mamadou Mountakha njëkk jiite daan xalifu sëñ Bassirou wootu sëñ wuutu sëñ Moustapha bu ñu fàtte ni 2008 alxames la woon 8 mai mois de mai la woon at ma ci topp avril la defe naa fi ne ñoom di janvier kon màggal gi amul bis boo xam ne bii ci lañ koy fixé wala ci lañ koy jàpp ñu ko sëñ Ba rek mooy ci ne waxtu woo xamante ne bii sama borom jëlee na fi lii te moom lay ñaan guddi ak bëccëg waxtu bu fi jëlee rek te mu xaj fi fu mu xaj rek dina ko fa dugal mu def ko nag loolu la sëñ naa ko jot li mboolem koo xam ne kii e, bokk naa yow sëñ Touba moo xam kilifa nga moo xam dañ laa yëlif moo xam góor nga moo xam jigéen nga ak foo mën di dëkk ak foo mën di bokk te. bis bi soxoloon la daayira yeeg ñëpp bàyyiwut kenn mu mu mu suñ bi woon naa leen jottali kàddu yi ak ndigal li ngeen xam fi mu ci toll nu bokk nun ñëpp déglu bokk nun ñëpp ñaan yàlla mi nga xam ne moo fi indi lii mu jële ko fi ba incha allah bis bu ko defee mu jàppaat bis bi nu ànd nun ñëpp nañ ko daan defee daje xaan euh, sellal suñuy yéene laabal suñuy xol ak suñuy jëmm sukk fa barabu maam jaara ba ñaanal ko ñaan eh, kon ci loolu rek laa jeexale di ànd ak taalibe yëpp di ànd ak julli yëpp di ñaan yàlla mi nga xam ne dara tëwu ko lii nga xam ne sëñ bi yéene na ko ñaan na ko ci lii nga xam ne dal na mu di mu di mu di mu di muy bas di nattu di balaa yàlla na ko yàlla teggil ci barke borom Tuubaa nun taalibe itam li nuy ñaan rek moo di li nga xam ne sëñ bi yéene na ko ci nun yàlla na ko yàlla defal waaye nun nit li nu yéene ci moom nag yàlla na ko yàlla defal te loolu moo di euh, aw fanam gudd mu amug wér amug man amug tal ba yoon wi nga xam ne kat mosu cee jóg mukk te woon na ci nu ànd ceeg moom ñun ñëpp nu ànd ceek moom ci ginnaawam liggéeyal Sëñ Tuubaa incha allah asalaamu aleykum wa rahmatulah wa